ci commerce boo xamante ne du perte ñett mbir yoo xam ne ci sunu borom subhaanahu wa taala amu ci muy salaasa tijaaraat la taariful xisaara ñett commerce yoo xam ne pertange amu ci bu ca jiitu moy jàng alquran ñaareel mooy julli ñetteel mooy joxe ci yoonu yàlla mbokk jullit yi jàng alquranul karim pertaange amu ci nit du jàng alquran bañ ne perte na mukk ci àdduna boo xamee alquran waxu yàlla xam kàddu yàlla di ko jàng guddi ak bëccëg ni ko yàlla waxee inna alladina yatluuna kitaaballah ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw ci téere yàlla bi di ko jàng di ko firi di ko faram di ko leeralal julli di wa aqaamu salaata ñu taxaw ci julli ak ni ko yàlla santaane ak niñ ko war a joxe wa anfaqu mimma razaqnaahum ñu joxe ci li leen yàlla wërsëgal sirran wa ci sekkere ak lu feeñ allahu akbar déggal adresse bi leen yàlla tegal ñoom ñett yàlla mu ne ñii yar yarjuuna tijaaratan lan tabuur ñii de yaakaar nañ commerce boo xam ne du perte mukk ci kanamu yàlla ëllëg jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kon mbokk jullit yi ñetti mbir yi ab jullit munu cee sax munu cee dëkk munu cee taxaw munu cee nekk ba pare ëllëg mu dajeeg yàlla daal di perte balaa ëllëg sax fii ci àdduna doo perte waxuma laak nag boo dajeeg yàlla ëllëg mooy taxaw ci téere yàlla bi tabaraka wa taala jàng ko dund ko xam téere bi taxaw ci jaamu yàlla te mooy julli di joxe say farata sa kemtalaayal kàttan ci ay waxtoom lala yàlla wërsëgal nga ciy coppati di ko dugal ci yoon yàlla tabaraka wa taala nga koy def lu feeñ ak lu nëbb borom bi tabaraka wa taala nee na jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu borom màgg gi nee na ñii yarjuuna tijaaratan lan tabuur ñii ñoo nekk ci commerce goo xam ne ëllëg pertaange amu ci ñi ñoo yaakaar ñi war a am kóolute te yàlla tabaraka wa taala du la wax mbir ba pare nga nekk ci sa yaakaar di tas yàlla du tas yaakaar allahu akbar ent yàlla bi mu suulee Haaruna ba pare dafa taxaw ci bàmmeel bi ndeysaan di jooy yàlla ne ko Moussa lu xew mu ne dama ragal dafay wéet fii moom kenn day wéet suñu borom subhaanahu taalaa ne ko Moussa eh, mbokk jullit yi kon jàng alquran julli sàkk ci li yàlla mën am may di ci joxe ci yoonu yàlla ñett la yoo xam ne képp ku ci nekk kooku day yaakaar na commerce goo xam ne du perte naa liggéeyal na yàlla loo xam ne du perte ëllëg mukk mukk mukk te mooy jàng alquran taxaw ci say julli joxe ci li la yàlla wërsëgal wa anfaqu mimma razaqnaahum yàlla nee na ñu joxe ci li leen yàlla wërsëgal allahu akbar mimma razaqnaahum ndeke yàlla am na ñu mu wërsëgal ku am wërsëg yàlla la su la yàlla wërsëgalee nga ciy coppati di ko dugal ci yoonam loolu nag soo koy def sirran wa alaaniya ci sekkere ak di ko feeñal lenn saa yi nit ñi yëg ne joxe nga yenn saay kenn du ko yëg yàlla nee na ñii ñett ñi ñoom day yar yarjuuna tijaaratan lan tabuur mu nekk salaasa tijaaraat la taariful xisaara ñetti commerce yu amul perte maanaam ñetti liggéey yoo xam ne ñetti xeetu jaamu yàlla yoo xam ne pertaange amu ci ëllëg yowmal qiyaam ci kanamu yàlla tabaraka wa taala kon yal na yàlla defal leen ko yal na yàlla barkeelal leen ko yal yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen na yàlla taxaw leen yal na yàlla def ko fi misaani xasanaatikum yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim jazakum allahu xeyran